ñu koy defee tout les mardis à partir de 14h30 fépp foo xam ne am na xew-xew ñu ñëw fa ànd fa ak yéen tey nag bi fi ngeen ñu gis ñu ngi taxaw fii ñu ngi fii si Caaroy euh, Tali Jàllo Picc ñu koy wax Tali Jàllo phase 2 xew-xew bu doy waar mu fi am ku ñuy wax Medoune Samba âgé de 48 43 ans moom la ñu fi agressé ba mu mujj ñàkk ba bakkanam si loo xamante ne lu doy waar lool lool lépp del si waar si insécurité bi nga xam ne am na si réew mi ndax léegi kenn amatul fan ngay moo waral tax tey émission xew ñëw fi si Caaroy ngi taxaw ak magam bi nga xam ne mooy taaw si kër gi ndey soxna maa ngi lay nuyu. Eh, maa ngi lay ziar. ñu ngi lay massawu li nga xamante ne moo dal si sa kaw. jërëjëf jërëjëf. xew-xew bi nan la demee ndey. Ah, ñun de dañu xëy samedi ay midi midi midi et ah ñu woo téléphone suñu goro koo xam ne moo jël suñu doom bu jigéen mu ne Médoune dañ ko agressé mais sonn na loolu mais moom yóbbu na ko hôpital ci la kër gi ñëpp dem. bi ñu demee ñu yóbbu ko hôpital Thiaroye commencé def première soins yi def nañ scanner rajo defal ordonnance yi yëpp ba ñu faj ko léegi bi ñu ko fajee ba pare après mu ñëwoon police ñu ne ko ñoom day dem police pour def déclaration léegi après ñu jël oto yóbbu ko bi ñu ko yóbboo def na déclaration ba pare par la suite ci la ñàkk bakkanam. d'accord lañ ko agressé. waaw moom nag war ga rek la ñu wax. Fallou Warga tali la kii la. waaw mooy pont ba la ci kaw. Mhm. léegi ñu ko agressé fan ngeen ko fekk yéen. bi ñu ko agressé dañ ko fekk ci sama place papa bi nga xam ne moom ci lay daane dooleem. kon su ma jàppee ni nga ni ma expliqué ni nga ma comprendre dañ ko agressé si benn place yëkkati ko fa yóbbu si beneen place. indi ko ci place am bi muy liggéeyee. nan la doon liggéey. salon de coiffeur la yore waaw foofu sama papa fa ne woon ba ni mu wàccee liggéey. bii sam papa nag moom la fa teg moom la daan àndal moom moo féete place bi. Mhm. léegi après ñu agressé ko fële indi ko foofu si place am kan ma ko découvrir si place bi. Euh, sama xaritu papa bi moo nekk ci suuf te ñu luyee ko dafa am ku doon monté canal ku fiilam canal la amoon masse mu yéeg ci jël échelle yéeg ci kaw. bi mu koy defar nee si la sànni bëtam ci suuf ci balcon bi mu gis ku tëdd léegi bi mu wàccee mu ñëw ne papa papa mu ne am na ko am na ku tëdd fële. mu ne ko fan mu ne ko si escalier yi ci kaw léegi kooku daal di yéeg bi mu ko gisee mu ko medul lan moo xew mu ne ko dañ ma agressé mu ne ko ku la def lii mu ne ko xam naa ñu ma def lii mu ne ko mën nga jóg mu ne ko mënul mu ne ko may ma ma naan léegi mu daal di jënd ndox may ko mu naan moom it bi mu wàccee mu dem ki nga xam ne moom lay àndal di gorom bi suñu goro bi daw ci place kooku woo ko kooku bi mu ñëwee xalaatam rek. bi mu waxee moom dafa ne ko dañ ma agressé fi ñu la agressé Fallou Warga ci la ko jëlee jël taxi daal daw yóbbu ko hôpital moom moo ñu informé ñun ñëpp ñu daw ñu daal di dem par la suite daal ay 16 heures ci la ñàkk bakkanam donc lépp si même jour bi la. waa a xam ne àjjuma daal ci guddi gi ci la loolu am mais samedi 16 heures ci la ci liggéey. ay agression na la demee dañ ko jam paaka dañ ko góor jaasi wala nan la demee. dañ ko góor fan. ba ñàkk deret bu bëri parce que jéem buñ si buñ si. fi mu tëddoon yëpp reer la ci place ba. Mhm. mais moom comme jot na wax ñi ko def xam naa du ñàkk yoon def liggéeyam pour ñu man leen jàpp comme dund na ba 4 heures. yàlla dogal na balaa 2 heures du matin jàpp nañ si am na ñu ñu si jàpp waaw ñu ngi police Thiaroye nii actuellement ñu ngi foofu. lépp nekk insécurité parce que koo xamante ne agressé nañ ko si biti man ko yëkkati ba indiwaat ko fi muy liggéeyee donc loolu lépp insécurité bi moom moo ko waral bi mi. Eh, Sénégal kay ñun xamatuñu dañuy ragal sax xanaa ñuy xëy di dox ñu ñuy rendi ci mbedd yi parce que lii boo ko gisee moom doo xam lan lay nduru ndax agression yi vif na vif boo xam ne kenn xamul qu'est-ce man sérieusement man sax léegi dama dama ragal man sama bopp sérieusement dama ragal yàlla xam na ko. <laughs> parce que Fallou Warga ak fi mu dëkkee fi ko ko fekk xaw na sore. sore dox. mu may mën nga dugg oto en même temps ndax le vendredi. ñëw na fii jàpp jël si jaadam dem juma comme d'habitude su jógee si jumaa bi day dem cimetière defar bërëb yëpp dindi ñax yi defar moom loo mu na loolu après ñëw añ ñu añee daa dee gont waaw. si man man moom jeudi laa ko gëjee gis. waaw ku am juróom-ñetti bant am. kon am na ñaari soxna ak juróom-ñetti bant. Ah, ah, macha allah macha allah. Ah. waaw perte bu bari ci biir famille bi. perte bu bari foo ko gis bañam ngay gis ku ne mën na ko tardeel seede bi mu am de man nday soxna Samb man magam ah maa ngi ñaan yàlla bis ma fi jógee yàlla na ma ko yàlla may ndax macha allah seedeem rafet na trop xaw ma nag man sama tay wala sama ëllëg waaye de bëgg naa lu mu am da macha allah macha allah. mel ni caare dañ fi nemme ko aussi insécurité bi nga xam ne dafay faral di am. effectivement en pagaille waaw bari na fi lool. agression yi bari na jigéen ñi ñu ngi këf seen péri yi këf seen pochette yi non c'est trop dur waaw li ñuy dund fii dafa metti metti na torop torop torop torop torop torop voilà Cheikh gis nga ko kooku mooy magam nday soxna Samb moom itam ñu koy jaale bu baax a baax ñu daal di ànd rek nday xuus dugg ci biir kër gi ah. jërëjëf jërëjëf. salaamaaleykum maa leen di fay. waaw tey waa 7TV fi ñëw ndax bi nga xam ne moom moo fi am fii ci Tali Diallo face 2 ci. man man liyam gorom la moom mooy mooy mooy man maay magu Binta Gaye. nga yëgee xew-xew lu metti la parce que moom daal ku jàpp njàmburam la te liggéeykat la waa ñu ko faat tamit nii vraiment insécurité war nañu ko que li xew fii bi état bi war na jël say motuwaay di faat nit di faat ay nit si si si si maa tey bi war na seetaat insécurité bi lu am mi. dafa dégg chaque jour nga dégg rey na diw def nañ diw nii te léegi loolu tamit dafa ëpp quartier boo dem léegi kenn ñematul génn léegi du guddi di bëccëg di même insécurité bi war na état bi war na jëlaat ay mesures s'il le faut mu renforcer même si si sa sax bu dee dañuy def ay yenn yenn kii yooyu comité vigilant kii yee nii di ko si koñ yi nii waaw war nañ jël seen motukaay waaw mais di di jaaduwul parce que nit ku dem ba pare ñu fay la yenn ñu rey la rey rey bi ñaar ba pare indi la ba sa at teg la si si ginnaaw fenêtre loolu dafa ñaaw trop. voilà Cheikh ñu ngi nii toog ak soxnaam euh, soxna ab sa Bey nekk aawam euh, ñu koy massa bu baax a baax li nga xamante ne moom moo dal ci kawam soxna Absa ñu ngi lay nuyu. maa ngi leen di ziar ngi leen di sant bu baax. ñu ngi lay massawu li ñu bokk. ñoo ko bokk. xew-xew bi dal ci sa kaw boroom kër. xew-xew bi dañuy rek laa ko yëgee woo ñu rek sa jëkkër dañ ko agressé mi ngi hôpital Kamba lii rek lañ ci am ñu dem fekk yàlla jël ko moom ko. kañ nga ko yëg. ajuma samedi samedi samedi. ajuma si guddi lañ ko agressé. waaw mais ñun samedi lañ ko yëg waaw daal lañ ci am. mu nekk nouvelle bu tiis bu bete nga kañ nga leen mujje gisante ñaar. alxamis. mais bi ngeen gisantee jàmbatu la dara waxul kenn mu ngi koy topp wala. déedéet dara dal ko dara dal ko. Kaffrine la xam yam ci boppam duggul ci kenn jàmm rek la ko nit ñu xamee ak salaam. defe naa at de mariage. moom génne nañ sept ans doog a mariage yàgg nañ trop xamoon na ma lu bari danaa wax lu nekk ci yow rek maa ko def ci yow xamoo woon dara. lu ma xam rek tey moom ma ko xamal waaw xaw ma kenn moom rek laa xam musuma génn ak kenn ba mu xàmmee ba léegi moom rek laa xam moom laa mës a génn. nga xëy ñàkk ko mu nekk loo xam ne lu metti la koo dundal ay at yu bëri def 16 ans de mariage 7 ans de relation mu nekk presque fanweeri at yoo xamante ne nekk nga ko ak benn nit di bokk ak moom benn lal nga xëy ne dootoo ko gisati ndax ni mu ñàkkee ba kenn. insécurité bi nga xam ne am na ci réew mi. waaw sécurité amul ci réew mu des na dañoo war a yokk sécurité. te jàppale nit ñi ñu ngi leen rey di leen jeexal agresseurs yi rey nañ nit ñëpp dëgg yàlla kenn ñëwatul a génn kenn amatul fitu génn ndax agresseurs yi sécurité bu baax nit ñi di leen toppatoo rey yi bari na ci dëkk bi dañu jàppale nit ñi te boroomu famille rek la ñuy rey ñu am njariñ am société ci dëkk bi ñooñu rek la ñuy rey. mu nekk lu métti am ngeen ay njaboot. waaw am na ñetti bant am na ñaañu góor benn bu jigéen. Hmm. lan moo la ban souvenir moo la gën a marqué si. souvenir mooy bi tey bii bii ñu ko yóbboo gisatuma ko su ma tëdd man dong maa tëdd léegi du ma gis sotti ba gis ko loolu ma gën a marqué sama àdduna loolu rek laay xalaat waaw. amiin jërëjëf jërëjëf. voilà. xam ko ci rey nañ jàmbaar rey nañ ko am fit rey nañ koo xam ne tey ji buñ ko bettu woon. du baax rey nañ jàmbaar rey nañ góoru yàlla rey nañ ko bëgg njabootam bëgg fameem bëgg yaayam yal na ko yàlla yërëm yal na xippee àjjana noo yëgee xew-xew bi dal ci sa borom kër comme yow yaay ñaareelam man de ba ma mujjee xam ci escalier bi rekk laa taxaw waaw ku baax jàmbaar du xuloo du xeex kër gi balaa moo génn day kaf ñépp yaayam yeeg magam yeeg rakkam yi ak jarbaatam yi amul problème du xeex ci mbedd du xuloo problème mu jàmbur mun na ko yenduloo àll bëgg njabootam bëgg ñépp seede bi daal benn la ñu koy ñaanal yàlla rekk fu mu jëm yàlla na ko gënal fii yàlla na xippee àjjanam xiifalul ay njabootam maralul ay njabootam sonalul ay famiyam tamit wax dëgg yàlla ñi daal dañoo ñàkk rey nañu jàmbaar rey góor yàlla lor njabootam te ñiy def ñaawteef bi kon ko nañ jàpp nañ leen justice na def liggéeyam ndax rey yi bari na dañ lay rey comme ginaar te du mujj fenn ñaari fan ngay toog ñetti fan bu fekkee ñoo la ëpp doole nga gis leen ñii taxaw wàllu ci àll bi kon ko nag jàpp nañ leen te rey nañu borom fami ñu ngi ñaan yàlla justice na def liggéeyam na def liggéeyam ndax kii boroom njaboot la. mu nekk lu metti ni nga ñàkkee sa borom kër ban souvenir moo la gën a marqué si moom. sama xarit la sama xarit la lu fanaan ci moom yendu ci man ay xaritam ñëpp xam na ñëpp xam nañu maay complice lenn rek moo ma metti anam niñ ko reyee bu fekkoon dafa feebar dee waa waaye nga jël borom famille borom njaboot nga def ko nii lor yaayam lor jabootam. lor ay soxnaam ñi ngi ñaan yàlla nag ki def nii lii ñu daj yàlla na ko yàlla dajal lu gën a metti lool ndax tey jii lor nañu lor suñuy njaboot ñàkk nañu ñàkk nañu loo xamante ni dootuñu ko amati ñàkk nañu lor yaayam tamit yaayam dafa nab ci moom reyuñu ko yaayam lañu rey soo gisee sama yaay nag mënul wax dafa nab ci doom soo gisee man may taaw sëyuma nga xam ne sama yaay dafa nab ci doom rax ci doolu wéru loolu moo tax mënul wax jooy rek la ko jàlloo ba lii amee dafa ñëw sama néeg na ma ndey ma ne ko ah mu ne ma sama doom dee na wallaahi wal azim mi ngi dund julli ba pare gestu ne ma ndey mu naa mu ne ma sama bis ba dellu seeti na medul mii du rëcc ci lii ndax liñ ma ko waxee du ci rëcc te billaahi li mu wax moo am moom it muy jàmbaar lool sama yaay Mali la jóge sëy si senegaal sama yaay bambara la sama papa takk ko Mali mu ñëw ci biir lébu yi ba ni sama baay dee sama yaay musul fay xanaa vacances jot mu dem Mali amuñu beneen papa sama yaay rek mooy suñ papa bëggul sax <coughs> koy wax waxi takkoo ma di ko ñaanal ci njabootam gi lii fi wàcc nii yàlla na doon lu sedd xolam yàlla na doon lu rafet xolom te xam ne suñu borom moo ko jox njaboot gi buy jël du ko tàggu moom nan la bi mu yëgee affaire bi maire bi nan la def koo xam ne sa caat la. Eh, mënuma ko nettali sama yaay ma lu ne def na ko man ak moom rek ñoo des ci kër gi lu ne lu ne sama yaay def na parce que dafa nekkoon xam na ko téléphone bi ñu téléphoné. boobu suñu goro bi bi mu woote ñu ngi toog di ndékki ndax ñun dañuy naajee ndékki wallaahi noonu la demee sama yaay dafa bëgg ma bilaay koo wax téléphone ku dégg dana ana mère Ndiaye ay waay yërëm naa mère Ndiaye koo wax baat boobu la lay wax koo wax ñoom ñii ñoo gën a yërëm sama yaay ndax xam nañ sama yaay nu mu nag ci doom ñu di ko ñaanal wér ak gudd fan newuñu bu mu fi wàcceti de waaye yàlla na fi gëj a gëj na fi gëj a gëj billaahi yàlla na fi gëj a gëj na fi gëj a te ñun ñi bokk ak Modou ndey ak baay ñu ngi koy ñaanal yàlla di bokk ak moom tiis bi di bëgg nag xeex bi yàlla may ñu ci ndam te ñu yàlla ñoo ñu génn di dox waaw nañ leen teg fi ñu leen war a teg nañ leen teg daan yi ñu leen war a teg ndax perte bu rëy lañ indi ci biir famille Sambène ku am juróom-ñetti bant ñaari soxla perte bu rëy nga leen indil waaw yoon na def liggéeyam na def liggéeyam medul ñi mu bokkandee ak bàyyi ñëpp ñu ngi koy ñaanal yàlla yàlla bu ko cet jiitu ci bàmmeel yàlla bu ko cat jiitu ci bàmmeel te métti na torop métti na torop Euh, taxawaat banlieue bi indiwaat euh, des mesures euh, barrières yoo xamante ni dina mën a sécurité nit ñi parce que am na ci ñoo xam may léegi rek may waxtaan ak benn femme mënu ma léegi sax moom buy xëy day bàyyi ba mu naaj au début da doon xëy 4 heures du matin daan xëy mais mu dajeeg ay malfaiteurs ñu nar ko rey na ne dipp boobu léegi dafa ñaan permission 8 heures lay génn këram loolu tamit na ci état bi jël ay mesures waaw surtout ça waaw. ah may waxaat tamit euh, ci Bintu Gaye moo tax ma ne bu mu ñëwee fii il faut que ma def ay témoignages ci Bintu Gaye ak euh, jëkkëram bi nga xamante ni moom moo fi jóge tey. waaw ah, tey ci moom yàlla moo ñu boole ma nekk acteur de développement nekk ci commune bi di liggéey ci commune bi lu yaatu ci au niveau de département Pikine ah, yàlla boole ñu xamante woon bu yàgg moom it développement intéressé ko mu ñëw ne ma Cheikh dama ma a liggéey ak yow ba ni may wootee ma dañoo waroon def benn rencontre di m koy woo ci la ma expliqué nouvelle mu nekk affaire bu tiis affaire bu metti affaire boo xamante ne vraiment ñun daal euh, vraiment désolé daal ñun daal instant bi nii xamatuñ ci fu ñu fu ñu jëm xamatuñ ci li ñu dox lan la instant bi daal ñun xamatuñ daal euh, fan lañ nekk daal ban Sénégal lañ nekk ah vraiment affaire bi metti nañu trop ba fu mu metti yem. waaw je vous remercie. jërëjëf jërëjëf dégg ngeen ko noonu mbokk yeeg xarit yeeg jàmm yi nga xamante ne ñoom ñëpp dañoo ñëw tey fii nga xamante ne mooy Caaroy euh, ko ñu jàll picc bi nga xamante ne mooy phase 2 fii nga xam ne fi la xew bi amee ku ñuy wax Medoune Samba âgé de 43 ans am ñaari soxna ak juróom-ñetti bant macha allah yàlla def nag ñu agressé ko agression bu métti bu mujj si ñàkk ba kanam lépp del siwaat si insécurité bi dégg ngeen mbokk yi ni ñu waxee xarit yeeg am di jàmm yi lu si am rek ñuy ñaan ñoom comme yàlla def na ne ñi ko agressé am na ñu si jot a jàpp ñu ngi si yoon ñoom mbokk di ñaan yoon def liggéeyam kon lu ci mënti am mu ngi noonu dinañ leen ko toppal lépp loo xam ne xewaat na ci nañ leen ko indil waaye daal lu ci mënti am métti na métti na Sénégal léegi doo toog semaine boo xamante déggoo jam nañu nit wala rey nañu nit wala agressé nañu nit léegi nag réew bu demee ba tollu foofu ba jigéen ñi war a xëy dem liggéeyi di mujj di nag ba mu naaj ñuy dem di liggéeyi day jar nag benn taxaw seet massa massa massa fejul góom waaye seet na xol ñu ngi massawu ndey soxna Samba mi nga xam ne moom moo ñàkk bakkanam moom moo ñàkk rakkam jooju di Medoune Samba di ko massaw bu baax a baax di jaajëfal ñëpp nag di jaajëfal guy bi nga xamante ne mooy borom euh, people 221 ak mbenn taalibe sëñ Saaliw borom Wassare TV ñoom ñëpp maa ngi leen di jaajëfal di jaajëfal Cheikh mi nga xam ne moom moo nekk tey ci caméra bi palo ci oto bi rendez-vous incha allah mardi 14h30 seen benn émission xew-xew jërë ngeen jëf